Assalamualaikum, yen mbolo mi maa ngi leen di nuyu lu bari di leen sant ci seen teway xam ni jot gi wul waye nak bàyyi ngeen seen di yep ñu set ci ma niko ko bamba waxe legi euh ci limay liggey man promoteur immobilier la lol moy sama liggey man maay def projet une famille un toit mooy logement yi nekk Tivaouane Peul sama référence mi ngi tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi mooy sama ndey mooy sama baay boo leneen benn référence loolu rek mooy mun taxaakat euh, li ma leen di doyee tey ji nag mooy dafa am loo xam ni dama ko mébét mébét bi mu li ko sabab moy jàppale président de la république Macky Sall. waaye dafa am luma sétlu ci digënté ki ma tuddu légui muy Macky Sall loo xam ne dara ak politique ma diko sétlu sama digënté ak sama baye di sama Serigne Cheikh Mountakha dama sétlu ni ba mu nekké ministre nga xamni ni xalaatagul nekk ministre. ne xal gu nekk premier ministre ci la tàmbonte tàmm di saafonte ak sëriñ bi ba mu nekkee ministre ba ni mu nekkee premier ministre mu def sëriñ bi léppam. loolu ma seetlu lépp loo xam ni sëñ bi bëgg na ko ba mu nekk lii mu nekk loxoom nga ci. ma xoolaat tamit bi mu nekkee président de la république ba léegi amul dara loo xam ni yëg na. xaaru ndigal sëñ bi di wax mu diko def ci kër gi ba ma seetlu tamit ci njabotam acteur la ci luma témoigner muy soxnam benn bis luma marqué la mustapha jaxate moo wo ni ma kat soxna si dafiy ñew ziyaari bi poroxane bu ñewit ñew en tant que dafa ñew ngir en tant que talibé ci yoon la jaar moom dong ak Moustapha Silo ak Moustapha Diakhaté bi mu ñëwee sëñ bi nañ ko jaarale ci barabu maam Poroxaan euh, barabu maam jaar mu siyaare nekk ci kër gi yëkkati jox sëriñ bi lim gën a sopp ci àddina muy alxuraanul karim toog yendu fa nib taalibe di yendoo kër sëriñam ba takkusaan jotee li ma xam ne woyoon sama ngunu su ndaw soosee ci Poroxaan fa la jàppee fa la julli takkusaan kooku kon jox na boppam kër gi ma seetlu ba tey premier ministre am muy Mahammed Boun Abdallah Dionne kooku politique boolewu ko ak kër gi ndax ndaxte njabootam gépp njabootu Sëñ Basiru la amul lu kër gi lu taalibe def ci kër gi mu ngi koy def man nag bu fekkee man gor laa te ma kudu mun Muntaxa te ñii fi nekk yu réew mi jox ko seen bopp waxuma sax lu mu leen di sant ñoom ñooy gëstu lépp luñ xam ni sëriñ bi bëgg na ko ñu def ko kon bu ma dee gor tey taalibi Cheikh Mountakha war naa jóg jàppale ko ndax lii muy defal sama sang bii muy Cheikh Mountakha